dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen ñu xëyando yéen kaay gi di Rewmi ñoo doon xaar Ousmane Sonko ngir mu wax ci xam ne moo am ci coalition Yewwi Askan bi nee na niki démb moom maire bu Ziguinchor daan nay wax L'Observateur Vox Populi Le Quotidien Enquête ak Les Échos xëy di ko dëggal journal bi di Rewmi Quotidien nee na ba léegi xii ni mii ni ma ngi am ci coalition Yewwi Askan Wi ci seen liste bi ci département bu Ndakaaru ndax niki démb direction générale des élections daf ko daal di tey jii ñoom coalition Yewwi ak seeni avocat nañu daal xëy dem ca cour suprême ndax dañ leen a wax ne leen am ngeen 24 heures ngir ngeen mën a def ab recours yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Ousmane Sonko njiitul Pastef maire bu Ziguinchor niki démb daan nañ indi ay leeral indi ay explication ci lu jëm ci coow li nga xam ne moo am ci coalition Yewwi Askan Wi ak mbifi foore gi nga xam ne moom lañ leen di mbifi foore ak liste bi nga xam ne wax na ne am na Saliou Sarr moom Ousmane Sonko nee na amul benn jafe-jafe boo xam ne am na diggante Barthélémy Dias ak Khalifa Ababacar Sall ay nit ñoo jóg yàq waaye nag mbir mi ni mu demee ak ñàkk déggoo moo amoon ci liste bu Ndakaaru maanaam loolee bokk na ci li ko waral Barthélémy Dias moom mi nga xam ne mooy tête de liste ci bu Dakar dafa bëggoon ñetti maire yoo xam ne ñoo koy gunge ngir nag mu mën a gagné département bi waaye nag Barthélémy Dias moomee dañu ko mujjoon a wax na ko roccil benn maire ba mu koy nangu boobee xaw naa yàgg Khalifa Ababacar Sall mi waroon a jël ay dogal moom tamit yéex naa jël ay dogal waaye nag njuumte la waaye nag bu ñu ko tuumaal dafa bëri ay leader yoo xam ne ñoom dañoo lànk kandaare na duñu dem ci département yi ñoom ñëpp ñu daal jël mbir mi jokk Khalifa Sall na ko yaay décidé na ko yaa yor sa cëgul guy xoolal mbir mi noo ko jekkoo ak noo ko mënee ak na ko xalaatee nga defee ko noonee noonee la ñëpp waxoon Khalifa Sall Ousmane Sonko ne na bi Khalifa Sall jël jëlee ay dogalam munta ñàkk am ñoo xam ne dinañu kontaan waaye tamit il faut am ñoo xam ne du bekk mbir mi noonu la demee ndax nag investir nekkul mbir moo xam ne mbir mu yomb la te yeneen liste tamit yéen a fay dégg maanaam coow rëy ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien moom Ousmane Sonko nee na société civile bi nga xam ne ñooy wër di mbapp mbappe di kàcc di fen di wax loo xam ne dara du ci dëgg ndax dañoo jot xaalisu Macky a la sàll wàtt sunu bopp ngir askan wi yaakaar ji a ko wax coow li tollu fii loole nag mooy firndeel yaakaar bi askan wi am ci li nga xam ne mooy yeeyu askan wi moom Ousmane Sonko nag gaaruwaale na ki nga xam ne mooy Madiambal Diagne ndax Madiambal Diagne fan yi ñu génn dafa wax conversation bi dox diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Sall moom Sonko daan nay wax ne am na ci ñoo xam ne bëgguma tudd seen tur waaye nag dañoo kàcc bu ñuul maanaam dañoo fen bu nanguwuñu la Ousmane Sonko ne askanu Sénégal ci libération ñoom wër te nangu élection te Ndakaaru du si bokk te nag li nga xam ne mbir mi moo koy faca maanaam jàmmarloo surso a nee na Ousmane Sonko corps à corps la wax ndax nee na Macky Sall xamul waxtaan xamul amiso Macky li mu xam mooy rapport de force defante ko ak mooma l'observateur Aminata Touré ñoom waa Benno Bokk Yaakaar tontu nañu Ousmane Sonko nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoo def seen njombe ko teguñu ko fenn naam ñoom def nañu ay njuumte waaye nag yoon dàqul benn yoon seen liste bi bañ a bokk ci élection yi te nag ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar ñooñu ñoo wër te bokk ci élection yi ndax loi bi dafa wax lu mel ni mité ndax bennoo li nga xam ne moom lañ sàkko ci ñoom ci ay parrain dañu ko daal di ëppale te ñi nga xam ne ñooy waa direction générale des élections lan moo tax ñu jébbaleen ab kuréel ñu lànk bañ ko jëla loole du dëgg du yoona te dinañu leen si topp deux moo war a jeex am ndey ak ku ma moomul ndey nag dafa am mbir xam ne ñoo ko war a fajal suñu bopp nee na réew mi bu dee day tàkk administration bi ak justice ak Macky Sall ñoo koy bu dee am na benn maire bu bokk yeeyu askan wi bu dee daf koo révoqué maanaam daf koo déjjati vingt quatre heures du ñu ko ko may ci bopp réewum Sénégal te Ousmane Sonko nee na Macky Sall dafa war a xam ne ci sursis la nekk Vox Populi ñu fekk fa Aminata Touré ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom nag nee nañoo kenn mënu leen a te kenn mënu leen wàllum politique nag maanaam lu séeréer la te nag xale yi kenn waru génn ci ñoo ngi ci coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee nañu maanaam Macky Sall ci boppam dafa war a ñàkk assemblée nationale a ñu xam ne moom la Macky Sall ak ñi mu àndal nekk ci réew mi yàq googee dafay xam ne ñooy waa LD Debout nee nañu bu dee Yewwi gañe na maanaam saax-saaxee gi nga xam ne moom la ñuy saax-saaxee suuf si ci réew mi maanaam saax-saaxee googee dafay dakk waa LD Debout ñoom nag nee nañu su dee Yewwi Askan Wi gañe na maanaam saax-saaxee gi ñuy saax-saaxee sunu ressources naturelles yi loolee tamit dafay dakk waa LD Debout nee nañu bu dee yeewi askan wi gagné na élection yi maanaam def lu ne weng te dara du la ci fekk loole tamit dafay jeex ci réew mi ñoom nee nañu bu dee yeewi gagné na démocratie bi nga xam ne saax-saaxee nañ ko loole tamit dafay jeex te nee nañu bu yeewi gagné dafay tax Macky Sall xelam du dem ci ñetteelu mandat ndax Macky bu ñu ko bàyyee mu gagné dina fi jéem a def ñetteelu mandat te bu boobaa ñu bari mën nañoo dee bu ñu bañee nag nit ñi dee nañu fexe ba benn bokk yaakaar ñàkk élection yi du samay kàddu waa LD bu ñoo ko wax ma ngi ci journal bi di Vox Populi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ba tey ñol ñol ma ngi am diggante am Amsatou Sow Sidibé ak journaliste bi di Pape Djibril Fall Amsatou Sow Sidibé nee na daf koy porte plainte maanaam daf koy yóbbu fa mbaxana doonee benn ba léegi moom Amsatou munta wanaaso maanaam parrain yi nga xam ne jox na ko Pape Djibril Fall yéen a kaay gi di Stades nee na Idrissa mi nga xam ne ñoo ngi koy mbifi foore ca diwaanu Paris Saint-Germain jamono ji askanu Sénégal ñoo ko na sojja taxaw di ko jàppale maanaam di ko tubu yu la Stades yéen a kaay nee na mbir lenn moo koy jeexal mooy Gana Gueye jóge Paris Saint-Germain